mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi toogal fi Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko suñ borom yàggal lool te may ko wér ak ci turu Serigne bu Bousso Mokhtar mii nga xam ne moom la àndal dend ak moom di imaamu jumaay tuuba waaye di njiitul daairatu muxaddamatul xidma kon ñi ngi leen nuyu ci seen tur ak turu mbooleem kilifa yi fi toog yépp ñi nga xam ne dañ fee toog ci turu muxaddamatul xidma ak ñi nga xam ne dañ fee toog ci turu kilifteef goo xam ne cër boo xam ne am nañ ko ci dëkk bi te lii di mbirum Serigne Touba ñu war a ñëw teewe ko kon ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di dalal jàmm bu baax a baax euh, mbooloo mii nga xam ne mooy agence Khadim Rasoul Voyage ci seen teewaay fii ci barab bu tedd bii di jumaay Touba ñu yàgg koo def di ñaan suñu borom ñu def ko ay at yu baree baree bari ba mu am ay agence yu baree baree bari di dalal jàmm itam ñi nga xam ne tey ñoo nar a dem joxe ji farata jee ca baytullaahil xaraam ñoom itam ñu ngi leen dalal jàmm bu baax di leen ñaanal suñu borom mottali leen lépp ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm euh, xel nag dal na ci agence Khadim Rasoul Voyage buy jóge fii di dem ca baytullaahil xaraam ngir joxe ji juróomeelu ponk bu lislaam départ fii ci barab bii ci Cheikhul Khadim loolu moom xel dal na ci la suñu sëriñ bu baax ba waxoon rek Euh, Cheikh Mouhamadul Fadil euh, qasadtu ziyaarata natbil karimi bila zaadin an Cheikh al Xadimi wa xamlu zaadi aqbahu kulli cheyin ida kaana alxuduumu ila karimi fa min tuuba bi taybata xad nazalna nazuuru sayida sahma alhumaama fa man zaara alxabiba wa saaxibayhi fala baqsan yaqaafu wala malaama loolu doy na sëkk kon nag loola rek mën nañ cee barkeloo ci jataay kon dañ doon ubbi dinañu jox sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno mu dalal mbooloo mii nga xam ne ñoo fi teew bu ñu noppee jox sëriñ Moulay mi nga xam ne wala boo kuy wax ci turu agence bi ñu dalal ko muy sëriñ Moustapha Dieng nga xam ne moom suñu giddi la moom yaakaar naa ku ku yàgg dem ci barab yu tedd yee danga ko fa fekk ci taxawaayam bu rafet bu mu fay am moom itam ñu jox ko mu wax ci turu agence bi bu ñu noppee jox sëriñ Afia mi nga xam ne mooy njiitul daayira muxaddamatul xidma suñu noppee nag cheikh mouhamadul xabbaan mi nga xam ne moo fi teew teewal fi cheikh mouhamadul muntaxa ah, daal di wax ko bu ñu noppee jox suñu xarit sëriñ alhaaji mouhamadul fadal njaay sëriñ daara alhaaji mouhamadul fadal ndiaye cheikh ndindi moom ni mu yëkk ci ay kàddu bu ko defee cheikh mouhamadul xabbaan doog a tëj ñaanal mbooloo mi ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm kon cheikh abdul ahad bu so ceerno bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sun borom yàggal ko fi te wéral ko di jiital ci nuyoo bi ci jataay bi ki nga xam ne moo fi nekk ndawam teewal ko fi di Cheikh Mouhamadul Xabbaan Cheikh Amadul ak sëriñaa Afia Bousso imaam mi nga xam ne mooy kilifa ak daayira Muxaddamatul Xidma di nuyu tamit sëriñ Moulay Seck ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci asaas xaadim rasul di nuyu kilifa yi fi teew yépp muy ujaaj yi yi nga xam ne ñoo fas yéene dem siyaara ji muy góor ñi ak jigéen ñi di leen ndokkeel te di leen tatagal di leen dalal ci barab bii ci turu daaira muxaddamatul xidma di am mbégte mu rëy rëy rëy te boole ko ci suñu liggéey muy lu rëy ndax ñi nga xam ne ñooy bàyyi fii ci sang bu tedd bi di dem di siyaara ji e, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp naa ne kuy dàkk mbégum sëriñ bi ñëw fii ci barabam di fi bàyyi di siyaare ji kilifaam gu tedd kee loolu dana ci bég lool te ñun nag segam dañ fay nekk rek ngir doon taalibe sëriñ bi yu koy liggéeyal lépp loo xam ne luñ gis la loo xam ne jàpp nañ ne mbégam dana ci am lu ñuy sawar la lu ñuy bég la loolu euh, toujours dañ koy wax sëriñ Mulaay mii ak ñoom si Moustapha ne de jóge gi ñu jóge fii de di wuti ci madinatul munawwara jàpp nañ ne lu neex sëriñ bi la loo loolu tax mu doon bis bu ñuy fonk boo xam ne bisu mbégte lay doon te sëriñ bi kat moom képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal tey dàkk mbégam ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa dana gën a bég ci yow loolu nag taw feex la ci ñi nga xam ne ñooy jaare ci assence bii di assance xaadim rasul di dem di siyaare ci baytullahi al ndax bari na ñuy aji ñoo xam ne bëgg nañ lu mel nii te mën na leen a jafe gaare fii sa oto jóge fii ci barab barabu sëriñ bi dugg ci sa oto wuti ci barabu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tawfeex ju rëy rëy la jógewaat foofa tamit ci makkatal mukarram ñëw fii wut si sëriñ bi direct ci barabam bi loolu it tawfeex la kon loolu yàlla na yàlla def ñiy aj suñu borom defal leen ajjun mabruur wa sahyun maskuur bi barakati xaadim rasul kon xam naa ne kàddu yi kàddu yi dalal la rek ak tatagal kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi kilifa ak daayira bi sëriñ Euh, dana ko jël ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyoo ak di ziar di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahullahu taala wa raa di ko teg ci loxol ci ko fi teewal muy Cheikh Mouhamadul Xabaan di ñaan yàlla sàmm ko guddal aw fanam mot li ay yéeneem. liñ yéene liggéeyal Cheikhul Khadim lépp mu sotti di nuyu waa daayiratu muqaddamatul ma bi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii ca ñuy ñoo xam ne dañoo wuutu mbooloo mépp dañoo wuutu wuutu taalibe yépp ci liggéey bu am solo boo xam ne mun mënta ñàkk ca ku toog sa kër am sa nekk faak sa sago ku nekk euh, wuutu gi ñu la ci wuutu moo tax waaye bu ñu selang lu woon rek euh, dana doy waar yàlla leen yàlla sàmm aar leen mottali seen yéene ci jiital Cheikh Afi Bousso mi nga xam ne moo ko jiite ak mboolem ñu àndal ñëpp xam naa ci turu sëñ Moulay sëñ Moustapha mi doon wax sànq yi noonu euh, dañuy mottali ay kàddu rek yu gàtt euh, ndax dal na am xel lool ni ko ñëpp waxe jóge fii jëm fee sëñ Abdoul Ahad wax na ko lees wala sëñ Abdoulahi Diop wax na ko léegi ci ne ko Cheikh Amadou Fadal waxee woon loolu sax xaw na nañoo tax ñu am luñ doon waxan waxantu fee ñu toogoon bind ne min alxadimi ila almaxduumi rexlatuna lil xajji rabbiya faqbalanna xajjatana qulna bidaan li cheikhina alqadimi ila maxdumihi xayri xalqillahi sayidina min rawdati cheikh min rawdati cheikh li rawdi nabiyi kama qad qaala sayiduna alfadil qudwatana kon loolu dal na am xel lool mu jóge ci barab bi jëm ca euh, barab booba tàggu kii e, jëm foofu tàggu kooku it jëm siwaat fii yàlla ñu yàlla defal tawféex ñu dem ak jàmm delsi ak jàmm ni ñu ko bëggee mu sotti kon assance bi dal na am xel lool e, sëriñ Moulay nee na mi ngi sant bu baax a baax mboolem xujaaj yi nga xam ne ñoo am confiance e, ci assance bi ndax bu yàlla dogaloon mu tàllal loxoom bëgg a liggéey liggéey bu rëy bii ci lislaam ci kenn amut ci moom kóolute it kon liggéey bi du ko mën a liggéey waaye nee kon mbooloo mi nga xam ne ñoo am confiance ci agence bi nee na ak fu ñu mën di jógee fu ñu mën a nekk ci dëkk bi ak ci réew mi nee na mi leen sant sant bu rëy rëy rëy ndax ñu jumtukaay yi nga xam ne ci lay mën a jaaral liggéey liggéey lislaam bu rëy bii ak ñi ko àndal nee rek xam naa di leeral tuuti ne bu sëriñ bi joxe kàddoom ba ñaan danañ jug dem ci barab bi ziyaara boobaa it ñu bàyyi xel ne daayira bi moom noonu la ñuy baaxoon naka jekk fii ñu daayira bi ne ñun ñun góor ñi nañ jëm nii jigéen ñi nañ jëm nii ne leen daal di déggal dem ziyaara wàññi ku dem ci kaar yi bu ñu àggee ci kaar yi it ñu bañ a njëkkante ñu bañ a yàlla dogal na kaar yi moom nit ñi fi nekk ñoo ko tax a jóg ca incha allah taala ku nekk da nga dugg bu ñu demee ku nekk day identifier sa bagage ba noppi bañ xam ne sa bagage a ngi nii ñu dugal ko boo defee ñu daal di sàppe sàppe yu jub. góor ñu sàppee jigéen ñu sàppee ñu daal di dugg ci li nga xam ne mooy kaar yi ndànk ne loolu moom ñu ngi koy dénkaane bu baax a baax ne ne di xam ne nag ne jóge fu nekk dem xaj yi euh, jaaru na nga am comportement bu bu rafet rafet waaye rawat na nga jóge ci kii rawat na nga jóge ci moom nee na bu ñu fa demee kon war nañoo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ni ab soppeem ab xaritam ab liggéeykatam ci lañ jóge koo xam ne joxoon na ko war lool joxoon na ko ab cër lool ba tax bu ñu demee foofa nee nañ li ko dalee fii ñuy tàmbalee ba ba ñuy dem ba ba ñuy ñëw nee nañ fexe ba suñu melokaan ràññi ko lool ràññi ko goo xam ne ku jéggi dayoo la nee na mi dénk boppam di ko dénk mboolem xojaa yi ñëpp bàyyi wuñu kenn demee ni kon kàddu yooyu rek lañ amoon ci kàddu yi ñu doon jot li di ñaan borom bi tabaaraka wa taala ñu dem ak jàmm dellusi ak jàmm Cheikh Mamadou Xaban mi nga xam ne moo ñu ñaanal ak daayira Muxaddamatul Xidma bi yàgg ñoo wax ak tàggatoo ak xujaaj yi ñaanal leen ñu dem ak jàmm ñëw ak jàmm barak Cheikh al Xadim radiyallahu anhu wasalaamu aleykum wa rahmatullah arrahman arrahim alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ñi ngi nuyu di ziyaar di jël nuyoo bi ak ziyaar bi di ko teg ci kilifa jataay bi muy sëriñ xabbaan mu cheikh mouhamadul fadal mu tegal ñu ko ci kilifa yoon wi di a cheikh mouhamadul muntaqa ñuy ñaan borom bi tabaraka wa mu gën koo yàggal gën koo dëgëral ba mu àggale ay naalam nuyoo boobu nag alxaaji mulaay sekk mi nga xam ne moo jiite agence xaadim rasool ak personnel bi nga xam ne moom la àndal liggéey bi ñoo yëkkati nuyoo boobu ak ziar bi ndax bi nga xamee ne agence bi sosu na ci ndigal la sosoo ndax yoon wi moom ci ndigal rek lay dox te ku ci ku ci tënku tamit ci ndigal rek ngay dox ba mu amee xalaat bi dafa fekk ne booba a Cheikh moo fi nekk mu dem laaj ko ci ndigal mu jox ko ci ndigal ne ko doxal ko ba mu ci amee ndigal ba léegi nag di ko doxal lu mu ciy def walla lu mu ciy yëkkati day delluwaat ba ci kilifa gi a Cheikh mun Muntaqa laaj ko ndigal ba mu ne ko doxalal mu doxal te yéene jim ci amoon rek mooy lii liggéeyal sëñ bi comme ni mbokk yi jiit mbokk yi jiitu niñ ko waxee liggéeyal sëriñ bi nag amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am ndax foog naa ba muy doog a commencé fekk ma madinatul munawara boobu am na lu ma waxoon te lam ma waxoon ba léegi ci loolu la nekk waaye nag sëriñ bi moom ku muy lu muy liggéeyaloo nit ki am na waxtu te lu mu wax rek du asaar lu mu bind loola du asaar kon jataay bi loola moo ko sabab ndax bañ buñ masaana eh, tase Madina maa ngi fàttaliku ba muy nekk ñeenti ujaaj ma leen di toggal sama kër sama soxna bu toggee ma indil ma indil leen teg ko ci sama oto indi ci jumaa ji mu naan ma man dey Moustapha lii sama yéene mooy mu yaatu ba waa Touba yépp jot ci ba nga xamee ne sax buñ ñëwee fii dañuy am suñu immeuble boo xam ne cinq étoiles lay doon ak Touba doon ak mboolem jullit ñëpp te loola foog naa bu yéen ji sellut doon du agsi fii waaye pas-pas bu dëgër moo tax mu agsi fii ba tax na moom eh, ak cantam ñi ngi koy ñi ngi koy jottalil kili kilifa eh, kilifa gi Cheikh Mouhamadul Xabbaan mu jottali ko sëriñ bi ndax lii ñëpp dañ koo def seen yëf rawatina. waa daaira bi nga xam ne ñoo ñu dalal muqaddimatul xidma ñoom it seen loxoo nga ca biir tey fu mu àgg tey am nañ ci ay jéego yu rafet ndax fu ñu taxawalee conférence danañ fa ñëw bu bis bii ak see tamit dañuy bàyyi lépp lu luñ jàppoon lu jamono xat-xat ñu bàyyi ko ànd ñu ànd kook ñoom kon lii mbirum sëñ bi la mbirum sëñ bi la mbirum murit yi la mbirum jul mbirum jullit ñi yépp la ba tax na ñu dugal ndax ku gis jataay bii ñu ñu déparé fii ci Touba daal di wuti al al al madinatul munawara loola taw feex mënu koo gën a rëy te mbégtam sëriñ bu ma nga ndax moom léppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon kon ba tax na alaaji mulaay mi ngi mi ngi mi ngi sant bu baax di dalal ujaaj yi nga xam ne ñoo jóge ci dëkk bu sell bi ak ñi nga xam ne ñoo jóge fi wër Touba am na ñu jóge ba Kaffrine am na ñu jóge ba Louga am na ñu jóge ba Rissaatool ak ñi nga xam ne ñoo war a départ Dakar taseeg ñun aéroport kon alaaji moom euh, mbégteem xam na fu mu waaye xamul fu mu yem ndax lii ku ko ku ko suñ borom ku ko sëñ bi teg ci sa loxo suñ borom jaarale ko ci yow loola doy na tawféex mu ngi sant tamit ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun liggéey bi guddi ak bëccëg. ku ci demee ni ki al imam Muxtaar Seck ak uh, al imam alxaaj Ndiaye Cheikh Ndindi al imam Serigne Abdul Qadir Mbacke ku lim da ngay juum ak personnel bi yëpp staff bi ñu jàpp ci liggéey bi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax li ëppoon solo ñi jiitu woon wax nañ ko ñun dañ doon jottali ay ay kàddu yoo xam ne lott nañ ci jottali ko muy kàddu yoo xam ne moom mënu koo wax muy kàddu kàddu kàdduy sant ñu ko ñu ko doon jottali ñi ngi jégalu bu baax ci ci ci ci ci ci ci ci guddal gi moom daal ni mu koy waxee toujours day wax ne bu sañoon mu gën a yaatu lépp moom moom mbirum yoon wi la euh, mbirum yoon wi la kon ñuy dolli di santaat rek c'est Cheikh Mouhamadul Xabbaan di sant Serigne Afia Muxtaar moom it chaque année rek nii la nii la koy defee lu mu xat-xat dana bàyyi xat-xat yëpp ànd koog ñun kon loola tawféex la dana tax eh, ñi nga xam ne ñoo ci nekk gën a góor góorlu ndax lii ab soññ la ndax it tey it tey ku fi mas a nekkal sëriñ bu mag bi la heure bu ñuy dem rek danañ ñu gunge ñaanal ñu kon loola ab soññee la Mbàkke ñi ngi leen di tàllal loxo ngeen gën a ñaanal Agence bi Agence Khadim Rassoul Voyage ba kenn du ko ëpp ay ndam ci lii nga xam ne mooy liggéeyu lislaam bi di lenn ci ponki lislaam yi muy aj Màkka ñu ngi jéggalu bu baax yëkkati suñ kàddu ci seen kanam sax waruñu woon di jéggalu guddal gi fa tabaarakallah di leen wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi wa mawlana muhammad wa ala barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax jiite ci nuyoo bi. Mawlana Cheikh Ahmadul Muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko bi lool ci wéral ko ak mbooleem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gépp yi nuyu Cheikh euh, Modou xaban mi nga xam ne tey moo ko teewal fii ci bu baax a baax di nuyu itam Serigne Afia imam di président daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem membre yi Muxaddamatul Xidma yi teew fii yëpp di nuyu itam waa agence Xaadimu Rasuul di jiital sëñ Moulay ak ñi mu àndal ñëpp di am mbégte lool nag ci teewaat fii teewaati sax lay wax na sëñ Moulay moom yàgg nañ maak moom kon ci lii daanaka mën naa wax ne ba mu koy tàmbali ba léegi maak moom ñoo ko ànd kon tey su ñëwaatee fii invité ci mairie bi parce que man mën naa ne ñaar laa fi ñëwee dama fi ñëwee ci muqaddimatul xidma bokk ci waaye dama fee ñëwee itam ci mu jëloon carte invitation joxoon ko mairie Touba invité woon maire Touba ngir mu teew ci lii kon léegi ñu ñëw fi nag ci turu maire boobu ngir lan rafetlu bii muy li nga xam ne moo am fii tey ca daan fi am ca yàlla na fi yàgg am muy déparé fii ngir wuti sang bu tedd ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy lu dal xel ci ñëpp waxandoo ko départ ci sëriñ Touba jëm ci yonent ba loolu lu ko gën a tedd walla ko gën a màgg amul ah loolu nag kon mairie Touba bu ci teewee mën na cee joxe kàddu li maire waxoon rafet rafetlu sëñ Moulay jëf ji nga jëf ci biir Touba muy la am solo amal agence bu ne fii muy départ fii mu ne loolu moom mairie bi war na cee taxaw fa seeni cee jàpp jàppale la ci incha allah wax na ne bu ngeen weesoo yi na ngeen ñëw ñu bokk toog waxtaan ci ndax biig biñ ci waxtaanee ba rafetlu na ko rafetlu goo xam ne ba séenée ne jàppoon na ne benn audience bu mën a doon warut a ci fii di dem fenn fu may muy déparé Touba loolu nag ndimbal lay doon ak waxtaan ak fa séene koo teg ci yoon ba mu yaatu loolu nag mairie bi pare na pour jàppale leen ci incha allah ñu mën a ànd liggéey bi ndax liggéey la boo xam ne liggéeyu lislaam la ca mairie bi moom mairie bi lislaam la fi toogal sëriñ bi la fi toogal kon man fa yéene naa taxaw jàppale leen ci ci kem kàttanam ni mu leen war a jàppale ñi ngi sant nag ñëpp bu baax di ñaanal ñi nga xam ne ñoo jóge fi dem yàlla yóbbu leen ci jàmm andi leen ci jàmm nangu seenuk aj ñu dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm fekkaat fi xaadimal Mustafa sallallahu alayhi wa ñi ngi sant ñëpp di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nag mënut a ñàkk wax moom itam day tàmbalee ci nuyu sëriñ bi di ko sant di ko gërëm di ko jotal sunu cant ak sunuy nuyoo ak sunuy gërëm muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool ni ko ko murit yëpp yéene yàlla na ko dal lim yéene murit yëpp yéene ko koy nekk taalibe sëriñ Touba yéene murit yëpp ñu nekk dëgg dëggi taalibe sëriñ Touba yàlla nañu ko doon ci barkeb sëriñ tubaa ñi nga xam ne ñoo war a dem nag ñi ñu xam ne ñu ngi def tukki bu jafe tukki boo xam ne yombul ku yàlla wërsëgal ba nga di ko def boo demee bul ko foyee na ko def te yàlla tax yàllay kese na tax ndax yàlla kat dafa giijal dafa bari le loo ko boole keneen mu bàyyi laa kooka kon te kooka amul pay nañ ko def te yàlla tax ñi nga xam ne itam ñoo yaakaar sëriñ Touba jóge fii di aji màkka aj di lu jafe gu lu naqare di lu naqaree matal nañ am fayda yi bu ñu noppee def ko ne suñu kilifa yi defoon def ko addiyi sëriñ Touba ndax kat bu ñu ko defee addiyi sëriñ Touba li aj di jafe lépp lu ci manqué suñ borom dana ko mottali ci barkeb sëriñ tubaa loolu mooy dénkaan li kon nag ñoo ngi ñaan bu ñu demee ñu naan ñu ñaanal nu ñu nekk dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa loolu rek lañ leen di ñaan loo bu ngeen demee ñu nit ñoo ngi leen di ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa ngeen dem ak jàmm ñëw ak jàmm te lépp lu ngeen fa def suñu borom nangu ko te fas ci ak wér tofal ci ak wér ak xéewal ba faw ci barkeb Sëriñ bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa waa kay jërëjëf kon mbokk yi yéen a kàddu yu am solo yooyu nga xam ne sëñ Abdou Lahad Bousso yëkkati na ko euh, ci turu muxaddamatul xidma waaye itam ki nga xamante wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani waltamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh xam naa dana xaw a diis lool ci man ci kàddu yi nga xam ne ñoom lañ teg ci sama loos ma war koo jotali muy kàddu yi sama kilifa yi teew di sëriñ Afia mi jiite muqaddamatul xidma waaye di sunu sëriñ bii toog di sëriñ Mouhamadou Xabaan moom Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ànd ak sëriñ Makhtar Seck teewal fi sëriñ bi waaye lu metti metti rek ginnaaw ndigal la xanaa ñu jéem dañuy tàmbalee ci kàddu yi sëriñ Afia ndax kàddu sëriñ bi moom kàddu du ci mën a tege ak taalibe mayewul ñuy yëkkatiwaat kàddu sëriñ bi ba noppi di ci tegaat geneen kàddu sëriñ Afia wax ne sëriñ Moulay mi ngi lay nuyu bu baax di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñoom nga àndal ci agence de voyage bii di amaat mbégte mu rëy ci dalalaat leen ci barab bu tedd bii. kaddu yi nag du jar ñu di dellu siwaat ndax li sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Thierno waxoon léegi rek ci kaddu daayir bépp la ko wax te ci ndigalam it la ko waxee ci bi leen di dalal kon kaddu yooyu rek mooy kaddu yi ñuy waxaat mbégte mi ngi am te muy doon loo xam ne waxtu wu nekk mooy seral suñu xol mooy liggéey boo xam ne jàpp nañ ne mbégum sëriñ Touba ma nga ci biir te jataay bii moom doonut lu ñuy nattable ne mbégum sëriñ Touba mi ngi ci biir ndax naka jekk yéeneem la woon pas-pasam la woon mu yàgg koo wax lool di yéene woon lool moom ci jëmmam dem siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dégg ngeen bayit bi nga xam ne sëriñ Abdullahi Joob wax na ko léegi wa huwa allati ayqa jismi an ziyaaratihi lakin lisaani lahu kal qalbi zawaaru kon nag qalbi lahu fi itaabil jismi takraaru li annahu lil huda wan nuuri jarraaru ak yeneen yu baree bare bare bare bare bare yasuuni mawti waa añi lam tara wa lam aral madinata al munawwara kon amoon na pas-pas ak yéene dem siyaare ji ko lool waaye gàllankoor yi ko gàllankoor ba mënu ko def yéen ñëpp xam ngeen ko waaye yàlla nag li ñuy gone yi di wax naan yàlla du tëj bunt tëj palanteer mooy di ko dal tey jii lii jóge Sénégal di dem foofee yaakaar naa boo ci njabootam ëpp tit kenn ëpp leen ci te ñoom ñëpp pas-pas bu sell la ñuy demee yéene ju sell lañuy demee alal ju lewul la ñuy demee waaye nit ñu yaru la ñuy doon ñoo xam ni lañ fa soxla lépp dañ koy def te teg ko ci ab yar ak i teggin te loolu lépp ñu ngi ko rootee ci moom Cheikhul Khadim moomu kon nag li ñuy wax bitiw ji fay na mbaal ja mooy ja nga xam ne moom la amoon sunu borom fay na ko ko ci jawatam te loolu bi mu fi nekk la tàmbali ak bi mu fiy door a jóge te kilifa yu tedd yooyu àndoon dem li ko yéeneem joojee mu mën caa tudd maam Cheikh Anta mii nga xam ne tey jii moom la ñuy fàttali ko ci bis bii ñu nga xam ne ci la ñuy déparé tey jii di ko defee fii man caa tudd Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne mooy wayjuru sëriñ Xabaan mii sëriñ bi yebal tey jii mu ñëw di ko fi teewee man caa tudd sunu maam alxaaji sëriñ Mbàkke Buso mi nga xam ne moom it mooy maam yi lu bari ci njaboot gi nga xam ne ñoo teew ci jataay bii kon loolu lépp nag day wane ne rek day wane rek ne yéene joojee sëriñ bi amoon ca loole suñ borom defal na ko ci lu kawe njort kon nag sëriñ Afia nee na sëriñ mu laay ba nga amee xalaat bu toll ne lu mel nii nga ko defee si fii amee nañ la ci cant gu rëy ndax yéene la joo xam ne yéene nañ ko liggéeyal sëriñ Touba tey su fekkante ne amuñ kuñ ko àndal ñun mënaguñu ko suñ demoon ba man ko sax te amuñ kuñ ko àndal danañ ko jéem fexe wut agence boo xam ne day koy def waaye ndokk nag ba nga xam ne bañ ko mënut kenn ko bokk ci nun ci pas-pas bokk ci ñun ci yéene bokk ci ñun ci liggéey bi xalaat na ko def ko su ko defee rek day mel ne ñun la ko defal loolu moo tax ànd bi ñu di ko rafetlu lool di ñaan suñu borom ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi tax ñu di ko def mu téyal nu ko te sàmmal nu ko ba mu yàgg lool ñu yàgg koo def lool kon loolu moo doon kàddu yi Sëriñ Afiya ci cant gi ak ngërëm bi mottali ko kàddu yi nga xam ne moom la Sëriñ Abdul Ahad waxoon la ca nag mooy kàddu yi sëriñ Modou Xaban sëriñ Modou Xaban nee mu ngi leen di nuyu bu baax sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbooloo mi. ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha. ndax mbir mii da koo ñor lool. ndax mbir mii da ko ñor lool. démb ci ngoon. démb ci ngoon. la ma wax ni. wax ni. naa ñëw ànd ak sëriñ Afia. ak daayira muxaddamatul xidma ñëw teewal ko fii ndax moo fi waroon a teew nee na mi ngi sant bu baax a baax sëriñ Mulaay ak sëriñ Maxtaar ak mbooloo mi ànd ak ñoom ci liggéey bi nee na it mi ngi sant sëriñ Aafiya ak waa muxaddamatul xidma ñoom seen taxawaay. ndax ñoom seen taxawaay. seeni nawle. ci seeni nawle. mooy ña ci madinatul munawwara. seeni nawle mooy ña ca madinatul munawwara. di toppatoo barab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon sëriñ bi nee na na seen xel dal bu baax. ndax bayit yooyu Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon. moom sëriñ Muntaxa. moom sëriñ Muntaxa. da cee delloo njukkal Cheikh Mouhamadul Fadil. da cee delloo njukkal Cheikh Mouhamadul Fadil. ndax Cheikh Mouhamadul Fadil bi muy dem penku. ànd ak bokk yooyee. ànd ak bokk yooyee. ba muy wax loolee. ba muy wax loolee. ak léegi. ak léegi. at yu baree bari la at yu baree bari la. waaye ci tawféexi sunu borom. waaye ci tawféexi sunu borom. ak ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Mountakha. ak ci teewaayu ak kilifaam. ci ci la ci la ci la bayit woowu ñëw. ci la bayit woowu ñëwee. kon nag waa kër Cheikh Mouhamadou Fadel gépp. kon nag waa kër Cheikh Mouhamadou Fadel gépp. ñu ngi jël seenu cant. di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha. di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha. tàmbalee ko ci sunu kilifa. tàmbalee ko ci sunu kilifa. Cheikh Abul Baraka. Cheikh Abul Baraka. ak i i jëwriñam. bu ñu ndax bu ñu nee euh, Touba la jóge ñu ne fan la ñuy jóge ci Touba ñu ne ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadil mottali woon yéenay Sëriñ Touba te Cheikh Mouhamadul Fadil mottali woon yéenay Sëriñ Touba ànd i kilifaam ànd kon nag loolu Sëriñ Abo ak sa njaboot Sëriñ Fallou gépp ñi ngi delloo njukkal Cheikh Mouhamadul Mountakha ak Sëriñ Mawlaay ñoom ñii ndax loolu dara gënu koo rafet Fallou di jóge fii ndax bi sëñ Fallou di jóge fii ak bi muy wax famine Touba li Taybata jooje bi mu koy wax booba yàgg na te booba ay warukaay amutoon booba yàgg na lool te booba ay warukaay jàpp ndiwutoon waaye nitu yàlla lu mu wax rek day am bés bi muy ñëw sëriñ bi wax ne yéen yéen waa Muxaddamatul Xidma yéen waa Muxaddamatul Xidma yéen itam am ngeen ci tawféex bu baax a baax day loo xam daal ndax day loo xam ne daal ay wax da cee xajul ay wax da cee xajul ku baax ki. jàkkaarloog ku baax ki. nekk ci penku jumaa ji. nekk ci penku jumaa ji. nga jëm ci soppeem boobee. nekk nga jëm ci soppeem boobee. ñëw ba ci moom tàgg ko. ñëw ba ci moom tàgg ko. boobu amaana amaatu feneen. kon nag nañu xam ne aj gu ñuy nangu lay doon. xanaa kay ñaan yàlla dem ak jàmm dikk ak jàmm. essence bi itam. essence bi itam. ñu dem ba ay wal yu ñuy moom. ñu dem ba ay wal yu bari yu ñuy moom. di fi jógee di dem foofee waa xidma yi itam waa muxaddamatul xidma yi itam muxaddamata yee ca madina ak màkka muxaddama yee ca madina ak màkka ñu yéeg ci ñooñee ci seen ay xéewal ñu kuy dem kuy aji itam mboolem kuy aji itam la taxoon ngay jóg la taxoon ngay jóg sëriñ bi bëggoon jóg googee te sëriñ bi bëggoon jóg googee nga dugg ci jógu sëriñ boobee nga dugg ci jógu sëriñ boobee ña ko demaloon ña ko demaloon di ay bokk di ay bokk di ay taalibe di ay taalibe ngeen bokk ci biir barke mbooloo moomee ngeen bokk ca barke mbooloo defal nu xéewal yu bari ñoo ngi ñaan sunu borom defal nu xéewal yu bari yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha njabootu njabootu Cheikh Fall sëñ Tuubaa gépp yàggal fi njabootu Cheikhul Khadim gépp ñu yàgg def nii ñu yàgg def nii ndax mbirum sëriñ bi nii rek la ndax mbirum sëriñ bi nii rek la lu ci jot rek lu ci jot rek day am firnde day am firnde fekk na lépp sëriñ bi ñaan ko fekk na lépp fi mu ne aj gii mi ngi ci Matlabul Fawzayni kon sëñ bi ñu kon sëriñ bi moo ñu garanti sëriñ bi kum garanti nag nga am ak wóolute ci nga yàlla na ñu yàlla yóbbu ci jàmm andiwaat leen ci jàmm ngeen fekkaat nu fi ci jàmm kàddu yooyu rek lañ ne woon nañ ko wax ñëpp ñu ñaan sëriñ Muntaxa ñëpp a ndax rafetal gi ndax rafetal gi yoon wi. kenn kër gu ci nekk. kër gu ci ne. lam moom ma ngi koy jox. lam moom ma ngi ko koy jox. kon nag loolu doy na sëkk. ak cant jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.